aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu leen ko waxee woon xam ngeen ne tey jii lañ amal bis bi nga xam ne sunu yaakaar di seex Mouhamadou xaa ñuy ñaan sunu boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko ndigal li nga xam ne digle woon na ko muy alxuraan ja xasidi gi nga xam ne yaataloon na ko ci mbooleem ëtti sëñ Touba yi waaye rawatina fii ci Touba ci dëkk bu sell bii biñ ñëwee fii ci kër mag moom gi nag tey jii xam ngeen na altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tabaski gi dëppoog le 25 ñu feggoog nag sunu kilifa sunu kilifa gu tedd gi di sëñ Cheikh Aliou mu mel ne mu wuy si ni ko mbooleem julit ñi defee na taalibe murid yi teew fi jëfe ndigalu sëriñ bi ñu fekk ko fi ñu fas yéene taataan ay kàddoom ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi jox na ko mbooleem jullit ñi ñëpp maase tey jii teew fi jëfe ko rawatina taalibe murid yi ñu taataan ay kàddoom ngir mën koo soññoo ci ndigal li nga xam ne sëñ bi joxe na ko sëñ Cheikh jërëjëf euh, ñu leen di sant bu baax ginnaaw ba ñu sante sunu borom euh, tabaraka wa taala julli ci yonent bi salawaatu rabbi alayhi di sant xadimu rasul Cheikh Bamba bu baax kii ko fi teewal tey di sëñ Mouhamadou Mountakha moo waral bis bi tey ñu ko lool nag waaye euh, ñëpp dañ ko bokk mu demoon France nemmeekonte ji ñooña wax dëgg yàlla am solo lool ci ñoom ñu ma mën a nemmeekonteeg moom saafoonteeg moom mu ñëw tey ñu namoon ko lool bis bi bu jiitu muy dem la ko fixé woon alhamdulilah na mu ko waxee woon noonu la ko sun borom dogale ba tax na muy bisu xasaayit euh, ak bisu xalaat jaamu yàlla bisu jàngal xoraan te loolu mooy ndono loo xam ne moom la fi Serigne Touba bàyyi woon. tey jii xam ngeen ne bis la boo xam ne. bis bu màgg la muy boo xam ne sunu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, digle woon njàngum alxuraan ak xasida mu doon loo xamante ni at mu ne daanaka mu fàttale ko soññe ko rawatina mboolem jullit ñi nga xam ne ñoo bokk nekk fii ci gox yi nga fasantikoo ñëpp wuy si nañ ko taalibe yi yaakaar Sëñ Tuubaa ñoom ñëpp ñëw nañ euh, jëfe ndigal li ñu ànd ko jëwriñam nga xam ne jiitaloon nañ ci liggéey bi sëriñ Amsatu Mbàkke ak waa Hizbut Tarqiyyah ci njiital sëriñ Youssou Diop mbooleem taalibe yi nag ñëw nañ daje fi def ko ay secteur yoo xam ne yu yaatu moo xam ci ëtt yi nga xam ne nekk na biir Touba waaye fii ci biir kër Sëñ Tuubaa gis ngeen daanaka fenn fu ne baas nañ fa amal fa ay jataay njàngum alxuraan ak xasida ak ay salaatu ala nabi ci ay fàttali rek ci bis bi nga xam ne tey daje nañ fi muy njàngum alxuraan ak xasida loo ci mën a indi rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh xanaa ñu gën a santaat yàlla sant si Tuubaa sant Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal ko mu yàgg bi te lool ba àggale naa li ëmb yëpp daraje bi nag bis la boo xam ne dañ ci gis ne journée alxuraan la te mooy gën lépp a xasida ak zikrullah a ay berne ni ko sëriñ bi santaane boo ñu xalaatan nag dañ koy waajale màggal gu mag yi dëgg la ndax màggal gi tuddee ci des yàlla na ci yàlla